asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nu ngi jiital kàddu yi jégalu nag li waral jégalu gi mooy suñ kilifa yu baax yi fi teew nga xam ne dañoo xam ne ab taali bi bu ne ci day mel am néew ci loxoy way sang ya am ndee nag ndee nag mu wër wër wax wëraay benn cër kon bu ne wax fii ci kanam kilifa yi loolu noo koy jégalu ndax waruñu waaye ndigal nag moo tax ñuy wax ndigal nag mu ak topp la waaye soo ko doon ndigalee ak ma lay doon waaye ndigalee moo tax muy ak topp kon nag sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di jaajëfal maam Serigne Fall jotali kàddu yoo xam ne nag mi ngi bàyyi ko suñu kàddu sëñ Cheikh Jëm maam Serigne Fall yooyu nag ñu ngi ko jaar ci loxo yi sëñ seex Ndiaye Mbeng mi nga xam ne mi nga xam ne ginnaawam ñi teew fii moo ci mag mu jox kàddu boole ko ay rakam bu nee maam Cheikh Raye nag. ku si rafal meññ mbaam meññ sa wajur mbaa ngay maam mbaa mbaa ngay sët yaa ngi ci biir bàyyiwuñ kenn bu nee sëñ Tuubaa itam mu ngi ci jiital Seex Moodu Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér ak ñëwal sëñ Tuubaa gépp kaddu yu ñu yëkkati nag kaddu yi sëñ Seex jëmba du suñuy kaddu waaye mi ngi ko jaar na ci mi nga nag jox na ko koy waxaat sëñ Seex nee na mu ngi yeesalaat ak njëbbalam mu ñëwal sa rafal gépp di ko yeesalaale mboolem ko yaakaar sëñ Tuubaa mbaa nga di murit mu ngi yeesal ak njëbalam ci sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Mountakha Mbacké mi fi nekk mi ngi ko jaar ci moom dolli ay cantam ci moom ak ngërëm ci kàddu yu mu yónnee woon ci moom muy kàddu yu ndigal di kàddu yu cant di kàddu yu xéewal ndax ndigal moom njëriñ rek la njëriñ la ndigal la njëriñ te ndigal la joxo la joxoon suñu Cheikh Jëm mu jox ko mboolem njabootu Cheikh Fall gépp kenn desut fukki buddi kër Cheikh Fall ak ben ñëpp fi teew ku fi teewul teewal nga fa sa sa rakk mbaa sa doom mbaa njaboot ga ak Cheikh Cheikh Fall yëpp kon suñu Cheikh Jëm Fall nee na ginnaaw mu yeesal ak njabootam Cheikh Modou mu ngi jol jotale am nuyoo moom nuyoo ba nag moo njaboot Fall ko bokk ak murid yëpp nuyoo boobee mu ngi tekki loxol suñu Cheikh Mbacké Baye Fall mii di monsieur Abdou Latif mu teewal ko ci mu joxoon ko sëñ mu joxal ko sëñ Mountakha ay nuyoo ak siyaare ak cent ak ñaan nu ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke Xaadimu Rasuul mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba lim naa la liggéeyal wajuram bu baax wa liggéeyal ko maamam ji baax ja mu defee ko ne ko yetam ko moom bu nuyoo bi nag sëñ Cheikh Jëm Fall nee na mu ngi seereel ak cant ñëwatu Sëriñ Tuubaa gi fi teew ak gi fi xam ne ñu joxoon day moo na ko joxee mel na ni booba lenn lenn mu ko fa la woon lenn mu ko fa la nangu fajar nag day mel ni bu dee ragal da ngay da nga naan fu may jaar ba jóg waaye ne la nangu fajar mu ragal jógal rek da ngay teg mu leer ba tax tuuti jant fenk leer nañ fa la neex jaar dem loolu mooy ndigal ndigal la nangu fajar la waaye fi liggéey bi tey mel na ne tey bu sañoon tey Tuubaa gépp di fukki Tuubaa nii ndax ak gi mu àgg gi mu sell ak njëriñ mu àndal yi mu àndal ak cant yi loolu moo tax mu sañoon tey mu toll tey junni yu Tuubaa lay doon tey iblan ab Cheikh Mbacke Abdoulaye mi dara wax naan lu junni bokk su ko fukk bokkee ya dañuy baral rek te liggéey bii liggéey la wax ni Cheikh Mountakha Mbacke mi ko digal di Sëñ Tuubaa digalu ko genn kër digalu ko benn sant du benn tariixa ku yaakaar Sëñ Tuubaa la waxoon ku yaakaar Sëñ Tuubaa loolu nag kenn génnu ca koo fi gis mu sant Mbacke mbaa Fall mbaa Joxaane mbaa Jóob ak lu mu rëy rëy kàlla mu bëgg doon mooy taalib Sëñ Tuubaa la bëgg doon kenn ku ne la nga ñaan mooy sëñ Tuubaa nangul sa taal bi te téye la ko loolu ngay ñaan kon bu sëñ Tuubaa diglee ñëpp war a génn kon day bàyyiwuloon kenn waaye fii ne bu ñaan Baay Faal yi naan Baay Faal yi seen mbale ma xam da ko jox na murid yëpp xëy na nag dañ cee gën a nangu mbaa na ko cee bëgg mbaa waaye mënuñ ci kenn waaye nag fex nañ ba sëñ Tuubaa yëngu rek nu Baay Faal yàgg ne waaye noonu ñëpp ko bokk nag waaye kon liggéey boobu yi nga xam te yi moo ko joxoon sëñ Cheikh Jëm Fall liggéey bi àgg na tey sell lool yaatu lool sëñ Cheikh Jëm Fall nag balaa sëñ Cheikh wax di jotali ay cant njabootu Serigne Fall gi mu ay rakam ñii di ay doomam ñii di Cheikh sëñ Touba Cheikh mooy Cheikh Modou Moussa mi nga xam ne mooy taaw Cheikh Refal njëkkoon fee nekk xalis naa la Baye Fall sëñ wóotu ko fi ne nii ak njabootam gi mu nekkal mu ay rakam sëñ Njaay mi nga topp ca ak sëñ Saliou Fall ak sëñ Assane nga lay toog kenn desut wala njëbatu Cheikh Moussa Fall gi teew nañ fi waa kër sëñ Mortalla Fall moom itam ñëpp teew nañ sëñ Abdou Rox yaa nga ne teew ak Baye Ndam ak sëñ Abdou Sini am wala njëbatu sëñ Mortalla Fall gépp waa kër sëñ Ibrahima Fall Ndar sëñ Mortalla Fall ngi ñu toog di xalifa bi sëñ Mortalla Ibrahima Fall Ndar bu ñu ko tuddee nag tudd nañ wala njëbatu sëñ Ibrahima Fall Ndar gépp ndax sëñ bi ndoo ngi fi waaye teewul ab sët la waaye bàyyi ma ngi nii di sëñ Mor Talla waaye teewul bu ñu tuddee Mor Talla tudd nañ ko sëñ Abdoulaye Fall Ndar gépp waaw waa kër sëñ Bassirou Fall alxuraan waa kër sëñ Bassirou Fall alxuraan waa mag moom maam Cheikh ku ñuy wax sëñ Talla moo fi nekkoon doom waaye nekkatu fi waaye sëñ mooy doomi sëñ Talla Yacine moo fi nekk ak njabootam gépp teew nañ ak rakam waa kër maam Assane Fall di njabootu sëñ Abdou Khadi Fall sëñ Abdou Khadi teew na fi moom mu ngi ci biir Tuubaa gii jëmul fenn wax dëgg ñëwul de rajo bi ñëwul de waaw. sëriñ Assane Fall mu maam Cheikh Fall njabootam gépp teewoon nañ fi sëñ bi Xadi Fall jëwriñ ja ak ci rakam ak njaboot gépp sëñ Cheikh Xadi nga fay ñu ko fa jotaayoo ak ña fa doon ña fa doon liggéey di leen yeewi ñoom it àggal nañ ah waa kër sëñ Modou Abdoulaye waa kër sëñ Modou moom sëñ Modou sëñ Modou am di Xadi Ñang muy xalifaam mu ngi fi ak i doomam ak i rakkam ak njaboot gépp teew nañ waa kër sëñ Mbàkke Fall sëñ Basiru Afaan mooy jëwriñ ja ak mboolem ko mbokkal sëñ Mbàkke Fall ak doom yi ak sët yi ak murit yëpp waa kër sëñ Ali Fall Mbaor sëñ Cheikh Mbaor teew na fi teewal fi ak njabootam ak taalibe bi ak rakk yi ak doom yëpp waa kër sëñ Abdou Sakoor Fall sëñ Fallu Fall mi ngi fi ndax sëñ Murtala nga ne teew teewal ko ak i rakam ak njaboot yëpp kenn desul waa kër sëñ Munda Fall Munda mooy maam moo sëñ Sakor bu jéen bokk waajuru góor bu jéen ñaan Munda Debbo ñaan maam Saliou teew na moom sëñ Cheikh Munda mooy mooy doom ju mag teew na fi ak i ñëpp ak taalibe yëpp waa kër maam Saliou Fall ku ne xam na ko maam Saliou ak bokk lépp mu ngi mel ni maam Mor Diarra ak sëñ Touba noonu mooy rakam ju rëkk sa cëm rëkk te téyel ko léppam kooku xëfoor tey mooy maam maam Dame Fall mi ngi daara xëfoor gii waaye teewal na fi nag rakam doomam bi yëpp nag ñu ngi teew ci jotaay bi tey ak ak ak taalibeem ak sëtam ak murid yëpp ak mbooleem nag Cheikh Cheikh Rafal yëpp yi nga xam ne Cheikh Rafal moo seexaloon seen i baay ba mu seexal seen i maam ba mu jox leen ab cër ñëpp ci biir liggéey bi kenn desul kon mu daal dañuy li ñu mën a wax daal mooy njabootu Cheikh Rafal gépp a ngi fi ak murid yëpp. kon nag Cheikh moom Cheikh Cheikh Abdou Mbacke Cheikh Cheikh Mbacke Abdou Latif ñu naan Cheikh Mbacke liggéey bii nga ñëwoon jox ko suñu Cheikh Jëm Fall mu njëriñal tey ëllëg suñu Cheikh Jëm Fall nee na xolam seet na ci baax baax a baax a baax waaye nag yéene na ko ñëpp nag ku dib julit mbaa nga la ko waaye Sëñ Tuubaa lu muy maye moom lu lu ñuy jaay nag jënd yaa moom lu ñuy maye day ku ne mën ngaa ñu may la ca sa kër ñu may la waaye lii du lu ñuy maye du lu ñuy able du lu ñuy sarxe lu ñuy jaay la ko jënd yaa moom njëg gi nag mooy jëf rek wax ji baax na lool waaye du ci may dara jëf rek ci may kon nag jëf ji àgg na tey kon nag mi ñaan sama borom mboolem ko fi teewoon tey jëbootu Seera Fall sëñ Cheikh Jëm Fall sëñ Cheikh Jëm na li sëñ Tuubaa yoroon di ko joxee day ba jox ko ndigal murid yi jo murid yi yëpp li sëñ Tuubaa yoroon ba di ko joxee jox ko murid yi yëpp teewoon ko ci loxoom muy jëwriñ ji liggéey ba àgg na tey jii sëñ Cheikh Jëmm nag ci wàllu boppam